Pays la route à route màggaluñ màggaluñ màggaluñ ko ma yomara pays mul ko ak ma la ko ഗായിവാപ്പിയും ജബറോ Cheikh Babou Sakho nee na pays laa woot ak a woot màggaluñ ko mooy Omaro ndaxte ñun xàmmee nañu saa xarnu fardu lan la ci doon texe ci moom la perte ci moom waaju bañ dajeeg fi turoo Cheikh Omar Ndaw Cheikh Babou nee na insi yun kafoor lañu ñoom nekkin munkiroon abada ahli bi jullum lal jamia fatasiro kon kay lii du njortu ndax dafa weer ku gëmul la ñëw dinu laaj teg ca déglu kon danga xam mbiri sun sëriñ omaro abu saako moom dena tam ak ñaxam wi ak alal مدة الآيات لوا lépp lew na Seex Omar ndax nu amarif mën a mel ak tariqa bu mën a nekk Seex Omar nandal na ko leer mbaa du naan lu dul la dara Abu Saako moom deretam ak ñaxam wi ak halalam mudatal ayaati lawa lépp lew na Seex Omar Seex Omar na suwaawu xarnu yépp far ko joowaab rëbb naa ëpp ñun tey sunu gémmiñ jàpp ñu padora abu saako moom deretam deretam ak ñaxam wi ak xalalam muddatal ayaati lawa lépp lew na seex omara yow mi soxla wir ndem te xeela taw gaawal daaru ndax xalifaam aji soos jamooy omaro baabu saako moom deretam ak ñaxam li ak alalam mudatal lépp lew na Seex Omaro te sax wir moom ku ko yor am ci àdduna door yowmal faasi moom du batiit ngir sawar ci ji Omaro abu saaxo moom deretam ak ñaqam wi ak alalam mu detal ayaati la wa lépp lew na Seex Omar abu saaxo nee na tënkiiru ak munkiir duñ ko laaj xanaa mu basiir ak basiiru ñooy xal ñëw nan ko fuus tabil omara baabu saaxo moom deretam ak ñaqam ya ak alalam mu datal ayaati la wax lépp lew na seex omara keroog xaraas la ñuy taxawe bisu xisaab di jëmmi leer ñépp naan rabbi nafsi هو ببيس أين المبرار باب ساق موم درتا أك نقم لأك عللا مدة الآيات لوا lépp lew na Seex Omaro te baabu nee na kenn du raw ku dul kapaam jàkk booba mursid wa متآدبا أبدا مسنا نم المارا بابو ساق موم درتا أن يقم ويأك على مدة الآيات لوا لبلو نسيقورا la fi ajiyeer baax ci diina ngir bëgg a raaw xan ngëb ko ak loxo bi jël sa xol bi joxo moroom baabu Sakho moom deretam ak ñaxam wi ak alala mu datal ayaati lawa lépp lew na Seex Omar bul ca faale nak la naan jaamu nii du sunna di biri sëriñ mbir la mu xóot jàngu duut ko xam xasiroot baabu saako moom deretaan deretaan ak ñaqam wi ak alalam mu detal xayaati lawa lépp lew na seexo wara nee na fii ci mulk ak malakoot gaay waa peyum jabaroot peyi laawot ak aawoot màggaluñ ku may omaroot baabu saaxo moom deretam ak ñaqam yi ak xalalam mudatal ayaati la waaw lépp lew na Seex Omara bi mul ko ak mal ko booye boo demal jabaroot baa dem lawut awut doo fa gis kemal amaroon abu saaxa moom deretaan ak ñaxam wi ak alalam mu datal ayaati lawa lépp lew na seex omar Sakho nee na ndaxte ñoom xamee nañu saax xarnu fardu lan la ci doon texe ci moom la perte ci moom waaju bañ dajeek bituroon baabu Sakho moom deretam ak ñaxam yi ak alalam mu detal ayaati la waa lépp lew na seex Omara insiyun kabar lañu ñoom nekkin munkiroon abadaj oni bi jullaw lal jamia fatasiro abu saaxa moom deretam ak ñaqam wi ak alalam mu detal ayaati la waa lépp law na Seex Omaro benn xaat ci bi xaat ci ngëmam wala ragala mboolem jaam ñi saaxaam ko war na kuy baram baabu saaxa moom deretam ak ñaxam wi ak alalam muddatal ayaati la wax lépp waaju wi di lii ma di wax bàyyi leen ko mu tajabun lum si